am léegi léegi lay doon incha allah. Euh, doore waxtaan bi ak li xew ni ki démb mu di rapport IGE yi ñu jébbal président Macky Sall rapport 2016 2017 2018 ak 2019 alors professeur tout d'abord ci ay rapport yu war a gunge état central muy accuser tout le temps ay retard est-ce que yoon la ci réew mi ñuy wax waxu bonne gouvernance bon loolu loolu kañ du yoon xam nga euh, li ñuy wax euh, réew mu nit ñi bokk ñu ni république maanaam mbooloo mi ñoo ànd bokk lépp lu nga xam ne dañ koy def war ko séddoo loolu dafa am ay sart sart yi bokk na ci maanaam benn nit rek du moom mooy dogal di def lépp mhm. kooku moom ci jamono buur yi la woon ñaareel bi mooy dafa am ay diir yu nga xam ni da war a def mbir yi maanaam bu ñu joxee ndombo tànk dañ lay wax benn at la wala juróomi at la wala juróom benn weer la te bu boobaa bu jotee danga war a ñëw jébbal waa yooyu mi li nga leen war a jébbal loolu bu amoon rek république amatul bon euh, toog ba ci ak man mii bi may jiitee kongat at bu nekk dama doon jot le rapport de la cour des comptes booba ku ko doon jiite ku am pal booba ba sax par exemple ku nga dama doon toog suma kër gi jot rapport bi mhm. parce que suma ad suma adresse moo taxoon ma ko doon jot bon kooku da doon def mhm. te nit ñi daan nañ ko jot bon nag yéexaay bi bu amee rek eh, yenn saa dañuy laaj nag ndax dafa am ñu dëgg seen tànk ci mbir mi wala teg ci seen conc loolu mooy wax ji waaye ñi war a def seen liggéey war nañ ko def man mii nekkoon naa médiateur université at bu nekk damay def rapport ki nga xam ne moo jiite kër gi ma jox ko ni ko nag wax ci boo ci waxul man dinaa woo journaliste yi wax la sa nekk te dama ko doon def moom mi xam ne si dara at bu nekk dama doon woote journaliste yi ñu leen université lii moo fa xew njaaxu bi lii la am na nag ñu ma ci doon mere waaye ba sama mandat jeexee maanaam ndombali juróomi at la woon dama ne woon juróomi at bu jeexee ma dem ndaxte boo fa yàggee juróomi at yi bu wees bu dootoo am xarit sa mbokk yi daañu la me looloo tax bon dafa war di daanu ci jamono ji waree daanu dafa war laaj itam nga siiwal ko bu dul loolu amul njëriñ. te te boo defee ndénkaane ndénkaane yi wut ni ñu koy saafaraa bu dul loolu li ñuy wax ci français euh, le syndrome de Peters mooy lan seuil d'incompétence cest booy dénkaane ni dafa lii defuñu ko yow sa bopp da ngay ñàkk fayda da dem ba ci ak ni ñi mere la ñooñu war def nañ seen liggéey léegi li ëpp maanaa daañu si dellu si waat lan la ñu war a def nag ndaxte léegi comme kenn na ah waaw lan la ñu si war a def ak ñan ñoo ko war a jot jotagul te war ko jot loolu la ñu mooy waxtaan dinañ ci euh, ñëw ci kanam incha allah ndey di met merci Khady may nuyu jotaay bi yëpp euh, di remercier suñu gan yi alors euh, wax nga ko dinañ ci ñëw ci lu gën a yaatu mais fi mu nekk nii rapport yi boo ko liiree day mel ni nawoon fawoon mbirum détournement maanaam conflit d'intérêt ak wuruj tey loolu yow boo ko gisee yëpp est-ce que wanewul ni tey Sénégal fa mu nekkoon démb ak barki démb fa la nekk ba tey. man de wax naa ko benn bis am ñu ma mere gis nga lii pencum réew mi daaw jéeg ba ñuy def fukki at yi dañu woote ñun ñëpp mais man wax naa leen lu nga xam ne seen benn xaritu yéen kaay du ma fi tudd turam mu mere ma mu ni lu tax grand boobu jëm mel dama ni Sénégal dafa dellu ginnaaw na man maa ko wax dafa dellu ginnaaw ndaxte am na yoo xam ni daaw fi am te léegi dana fi am loolu loolu tax boo nee ma dafa mel na na woon fa woon déedéet dafa yées déedéet du na woon fa woon fi mbir dafa yées parce que am na yoo xam ni nit ñemewuñ ko woon def jomboon nañ ko léegi rek la tuñ ko te defe naa daañu ci dellu si di daañu wax ci mbirum suuf yeeg yenn affaire yi bu boobaa daañu la wax ni am na lu xew ci réew mi suuf fi am <laughs> man wax naa ko keroog nit ñi am na ku ma mere ma ni mais Sénégal am na yu nga xam ni am na fi mosu fi am. da ngeen liggéey ci wàllu assise yi te président Macky Sall donte euh, au depart dafa ne woon dina xool. lu muy signé ak lu muy signé signé woon na ak réserve mais tey est que jàpp nga ni président Macky li mu signé woon jëm ci wàllu gouvernance est na ko. waaw man keroog ba ñuy def euh, euh, màggal fukki at yi nga xam ne moom la as keroog dama ni. ñëpp ñi si woon dañu fa bare woon toog keroog maa rus ndax keroog dañuy ñëw ni ñu dañuy may université ñu daje fa ñu dem ba mu des bés ba mu des benn fan ñu ñëw ni ñu loolu foofu kenn mënatu fa daje keroog yenn journalistes yi xam ngeen li may wax keroog waa PUR ñoo ñu mujj may Pa Makhtar Mbow yéeg juróom ñeenti étage parce que boobu dañu bëggoon toroxal waaye man keroog wax naa ni mar warul tax ngay naan petite ndaxte lii ñoom bañ koy bañ si ànd parti yëpp lii ma yore nii tekki nañ ko ci wolof alpulaar séeréer soninke mandeng euh, joola est-ce que parti yi ñoom wasaare nañ ko ci réew mi lu tax defuñu ko ak li ñu ci wax lu tax ku ci ñëw toog ci jal bi ni man fàtte naa li ñu bon dañuy fontoo waa réew mi te réew mi nag ku ko font tuuta day xëpp sa kàgg loolu moo ñu dal lii ñu dal yépp font la ak perloo nit ñi temps ndaxte yoon wi fu mu war a jaar fii li ñu jëkk wax mooy président warul nekk njiitu parti kii moom lañ ko ñoom bi ñu koy signé ñoom ñoom ñoom bi ñu nañ ko lu tax ku ndaw ci jal bi nag yaakaar ni yaa gën a muus nit ñi waaye ñu gis daañu xam fu ñu fi di mujje loolu loolu li ma lay wax nii moom la ñu si képp ku ne dafa signé réserve day naxaat kooku amul woon amul woon da ngay ñëw signé boo bëggul signé doo signé te amoon na sax lu ñu topp ñu tuddee ko groupe de travail et de suivi at bu nekk ñu xëy na sax erreur boobu la ñu def bëgguma tudd <laughs> tudd seen tur ñi nga xam ne dañ doon dajee weer bu seet ndax Sénégal mi ngi si yoon wala nekk ci yoon bu ñu dajee xëy na erreur bi ñu def Mamadou Lamine bu fi toogoon tey Diallo Diop El Hadj Momar Samb ak ñeneen ak ñeneen dañ daa woon toog ñu nii léegi kii dañuy wax nii ñoo ngi ci yoon wi wala nekkuñ ci yoon wi au lieu ñu jox ko ñëpp président de la république lañ ko doon jox président de la république lañu jox moom rek di ko wax ni ah yëpp yi nga te loolu nag war dañu foofu lañu defee erreur dañoo waroon woo ñëpp ñu bokk ñu jox leen. Mhm. waaye loolu moom weesu na euh, moom daal di ko mais mais ñoom ñëpp syndicats yi ONG ñëpp a bokkoon ci assise mhm. journalistes ñoom ñoom. ñëpp même am na ñu am na parti ñu nekkoon si jàll ñu woon bokkuñu mais loolu xumbal la rek seen parti bokkoon nañu mois je connais des militants du PDS participé nañu maa dirigé woon la gouvernance sociale santé éducation culture sport ak dialogue sociale waaye dama ni la ku ni daal affaire bi Sénégal yëpp fekkewuñu ko mhm. na na indi lu gën lu gën li man de ku indi lu ci ku indi lii ma topp la muy indi lu gën. Mhm. ma topp la waaye nag bu fekkee topp ñu ci lii ñu waxoon Sénégal du génn ci gilaawal yi te. dana gën a métti nag. alors Pape Alé euh, rapport bi emploi fictif clientélisme politique marché gré à gré bëri ay rëq-rëq yoo xam ne mu ngi ci biir rapport bi bu ñu duggee ci ministère de la culture bi nga xam ne 78 agents yoo xamante ne dañu leen di fay ci contribuable sénégalais ban lecture nga am ci loolu. tout d'abord euh, d'abord euh, mooy première lecture bi mooy premier rapport bi waroon génn c'est contre l'inspection générale d'État dama lay liiral ñoom François Collin li mu wax la loi portant statut des inspecteurs généraux d'État impose au vérificateur général du Sénégal de présenter chaque année au président de la République un rapport sur l'état de la gouvernance et de la reddition des comptes 2015 la ñu gëj a génneel rapport te léegi di impose c'est son terme demal nga tàppee rapport yi nga liir ko man démb ci guddi ci laa fanaan ma lay nga xool moom moo ko bind fotom na fàng mu ne impose au vérificateur général de présenter au président de la République chaque année un rapport sur l'état de la gouvernance et de la reddition des comptes mieux boo gisee terme bu ñu utiliser lu baree bari ñoom seen jargon xam nga lan la l'orthodoxie républicaine l'orthodoxie républicaine suppose que ñu respecter les textes et les lois qui régissent notre république alors on peut se poser une question simple pourquoi l'inspection générale d'État n'a pas produit un rapport depuis 2015 est-ce pour protéger un régime par rapport à ses cafards pourquoi je pose cette question xam nga on peut sortir benn rapport boo xam ne day incriminer nit en 2016 avec des faits réels nga xool rapport boobu incriminer nit ndekete faits yooyu boo ko yóbboo ci justice ce sont des faits qui sont prescrits léegi looy def mbamba nga koy may ci askan wi wante amul dara benn njëriñ askan wi parce que buñ koy yóbbu ci juridiction yi parce que man gis naa kenn koo xam ne approché wax nañ ne 2009 2009 ba 2011 yokkaat ci ne defaat na ko sax 2012 ba mille 2009 ba mille 2011 loolu mu def noonu est-ce que bu ko yóbbu tey jii ci yoon yoon mënuñoo wax ne ce sont des faits prescrits par la loi d'où la nécessité.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 buñ koy dugal kasu IGE la déparé woon dañ ko déclassifié Macky Sall premier ministre moo woo diplomate yëpp ñu toog mun na leen muy liir di wax lu tax ñu jàpp Idrissa Seck dañ ko déclassifié coow li bari ci affaire Khalifa Sall Khalifa Sall ak ay avocat na leen déclassifié leen rapport bi ngeen liir lan moo ci rapport parce que xam leen lañ ci bind mosuñu ci bind déclencher des poursuites contre Khalifa Sall dana revoir le mode de fonctionnement de la caisse d'avance et les décrets instituant la caisse d'avance loolu lañ bind ci rapport boobu. alors moo tax ñu ne ko teg moo tax na nangu ñu woon déclassifié mais bu leen leeroon ne dañoo bind ci rapport bi. déclencher des poursuites judiciaires cot Khalifa Sall ñoom ci boppam ñooy koy déclassifier teg ko. mais xam na ne dañoo déclencher poursuite parce que bon c' est un règlement de compte politique. à ce rythme que duñu affaiblir organe de yi wala sax ñu dem ba image peut être bi ñu war a am mu yàqu. mais organe de contrôle yi. affaiblir organe de contrôle parce que finalement on se demande rapport yi ban njëriñ la am. finalement moom affaiblir organe de contrôle mi ngi tàmbalee muy liggéey liggéey bi mu war a liggéey ba pare jébbal la rapport. na la rapport boobu nga na ko waaw bon yéen magistrat ngeen mais dinaa teg benn commission pour mu xoolaat li ngeen liggéey musta am Sénégal Senghor musu koo def Abdou Diouf koo def Abdoulaye Wade loo ko mës a sikkee sikkee li ngeen bëri am na ñu bëri ñu leen di dàkkantal ñu leen di dàkkantal ay tur tey ci di wax ne diw kuddu wala kii parce que ci rapport rapport ngeen ko xamee ñun ñëpp nañu wax waxante dëgg Abdoulaye Wade tëj ñu fi ay ñoñam moo tëj ba Diop ba mu nekkee Azer moo tëj bay la woon ba mu nekkee Lonase ah ak ñeneen ñoo xam ne moo leen. jàpp ndax ndax kon du ñàkk volonté bu bu nguuru Sénégal comme ni nga ko waxee peut-être pour pour pour dem ci lancé boobu ñoo xam ne dañ leen a cité ci ay rapport tey dañ leen a mën nañu wax ne dañ leen a promis ci ay responsabilités yu gën a mag donc. limal ma benn nit bu nekk ci nguuru président Macky Sall bu rapport épinglé au contraire moom mooy jël sax sa défence c'est parce que déglu nga ko 31 décembre. li mu wax bañ ko waxee ci rapport wu affaire kudd bi lan la ci wax boobu am na ci point de vue il a pris la défense or c'était plus simple que moom mu bañ a sax dugg immiscé wu ci loolu moom moom monté au créneau pour defendre muy un te kooku ñoñam la moo tax mu defendre ko jox ko promotion mu nekk ministre ok au même moment rapport boobu dafa waxoon ne wartu occuper benn fonction publique loolu la bindoon de ci rapport bi noir sur blanc xam nga kon jàll na kon moom ci rapport bi te buleen leen sori boobu sax dafa sori da ngeen di fàtte ne euh, OFNAC defoon na enquête ci ay trafic de permis Louga ñu jàpp ci ñetti nit kenn ki responsable politique APR la Mbour ñu relever leen jàpp leen dugal leen kaso kooku nekk responsable APR Mbour ñu jox ko liberté provisoire mu génn ci liberté provisoire président bi nommé ko conseil des ministres PCA am na fi. parce que xam nga li may wax ni yëpp ay man nee naa leen du ma toog inventel président Macky Sall ay fait rek laa koy wax bu amul. ku tàppe ci net bi xam turam. ak contenu rapport bi dafa am solo parce que am na ñoo xam ne liiruñu peut-être rapport bi ak li ci nekk puisque bëri na mais bu ñu déggee lu toll ci 882 voitures yoo xamante ne am na ay commission naka la ñu mën a xaaree sax ba IGE di fësal loolu di ko jox le président de la république. président Macky Sall toog na fii ne euh, de 2012 à 2018 on a acheté au moins plus de 400 milliards de voitures. ma ne ko mais ba pare na c'est du gâchis tapé sur la table di wax ma ne ko mais président ah ba ngay wax loolu président Zimbabwe nga woon nekk woon Sénégal. vous étiez le président de la République de à 2019 yow war nga xam fan nga fan la administration bi toll wala déet. parce que nag si vous êtes le président de la République vous êtes l'homme le plus renseigné du pays. boo demee ba toog ñuy jënd ay oto ba mu toll ci cent milliards yow nga ciy offisqué wu. mais boobu président Zimbabwe wala Zambie wala Burundi nga woon. Mhm. wala nekk woon fii Sénégal te nga koy gis. tey est-ce que kon mënuñu njort ni président dafa amoon ay information ñun yu ñu amul woon parce que rapport yi génn fësal na ko ci oto yu bëri yi nga xamante ne ni jënd nañ ko. mais demal xam nga looy def li ma leen di sant dama koy wax fii seen benn caméraman rek mën naa ko wan benn place benn place bu ma bu ma xam man mu dem rek mu photo mu mu filme épave de voiture yu def aade ay épape de voiture garage boo wër fii dama fa gis ay épave de voiture yu ñu def AD parce que xam lu tax jënd oto da leen yomb et puis dangay ngay ñëw gis benn ministre looy soxla euh, GLE looy soxla Mercedes looy soxla Range Range loolu yëpp pour lan la looy soxla huit huit fii ci remaniement bi remaniement bi passé am na ñu ne benn ministre boo xam ne dañoo dem këram gis fa au moins six ou sept de luxe yoo xam ne yëpp mi ngi ko gaaree ci biir këram loo koy doyee benn oto nga mën a war benn kër nga mën a dëkk benn lal nga mën a tëdd loo koy bërile bërile bërile te et xam nga tonton Bouba dafa dafa euh, waxul wax ji rek wala mu koy mu koy kii mais ñun dañ koy jaar ci digg bi gis nga charte bii ñuy wax nii moom xam na ma xam président Macky Sall gëmu ko assises nationales yi xam nga tax mën a gëmu ko li commission nationale de réforme des institutions bi mu créer après sa après son élection ak li assises yi def benn la jéey moo fa nekkoon amul Abdoulaye Makhtar Mbow même liggéey lañ gëm bu ko gëmoon du yàqaat xaalis foofu si commission te ñooñu sax ba ñu jëlee liggéey bi jébbal ko ko lan la leen wax daf na leen bon vous avez fait travail mais dama ciy tànn lu ma neex et peut-être loolu moo tax Sonko professeur doon wax wàllu euh, impunité mais tey bu bu yëf yi di di law ban conséquence la mën a am ci citoyen lambda bi wala sax si suñu ay partenaires technique ak financiers. waaw euh, balaa may tontu ci damay sax bëgg wax tuuti. allez-y ci ci may firndeel li mu wax. man duma la nëbb dara. doyen Amadou Mokhtar Mbow. suñu maam la. Mhm. suñu nijaay la. keroog bañ ko waxee affaire du bi. man dama ko téléphoné ma ne ko waaye man gëwuma ni ci am na lu ci nit di yokk man mosuma dem ci seen néeg yi pour pour kii li muy wax parce que damaa gëm nii ku bëgg def ci lii te bëgg guddi yoon wi doo jaar fi donc damay firndeel loolu ma tontu ci laaj bi xam nga laaj bi nga laaj dafa am maanaam lan moo tax gaa yi di def maatay ak di fuural kooku xam nga ku ku ku am xel sax dafa lay jaaxal day lu tax waaw moom nit ñi yow nga xam ne dañ la fal ba nga ñëw toog yow doo woon dara. waaw mm-hmm. président bi man bu mu nekk étudiant man boobu maa ngi jàngal waaw keneen ak yeneen ba mu nekkee fii gouverneur la woon ah, euh, maître Wade bu mu ñëw am na bu nga xam dafa doon jàngale université nekk doyen boobu du woon président bon nit ñi xam nañ ni eh ku ci nekk président itam daa am foo jógee du sa papa du sa maam du sa yaay moo tax. nit ñi ñoo toog ni Pape Alé ah, li mu wax am na maanaam wóolu nañ ko bon lu tax maa tey ba loolu man dama ci wax sama xalaat xam nga man dama dellu ci ci li nga xam ni mooy jàngoro bi mooy buur bu dekki xam nga ñun président yi ñu am buur bu dekki xam nga buur yi dañu deewoon buur bu dekkee dafa dafa bu dafa dekki dafa mel ne xamul fu mu nekk ñoom loolu moo leen dal parce que dañuy yaakaar ni leen neex ñu def loolu nag kenn daal laa gis ni mu dem ba ci biir xam ni moom mooy Mandela Mandela bi ñu ko falee mu xam fu mu jaar fanweeri at dugg ci kaso bee kër kër bu mu ñëwee ñu bari jaaxle nañu pourquoi góor gi bëggul toog lu yàgg dafa am lu mu xam am na keneen ku ma xam ci réew mi dama ko xam ni xam na loolu gisoon na ko man masa waxtaan ak moom mu wax ci loolu muy seexante Anta Diop toog naa ci bureau muy wax réew bu fekkee nit ñi jànguñu yeewuñu te organise wuñu nga ñëw di leen jiite sax musiba man kooku toog naa mu wax loolu moo wane ni ñun ñoo war a seet suñu bopp seet ñi ñuy fal ak ñi ñuy teg nan la fi ma fiy daan nag mooy pour tontu sa question bi xam nga fit ak tiitaange moom mooy indi yëpp ku am fit mooy yow lii rapport yi yooyu ñu wax ko da ngay ñëw mu jaar ci noonu day metti nag parce que sa mbokk sa nijaay sa maam sa mën nañ ci bokk ah ba yaa ko xam nga euh, dañuy ku bëgg nekk imaam waroo ragal ñu ni imaam bi kat xaftaanam dafa xotteeku boo demee ba ne yow da ngay amul sa rakk amul sa mag bu ñu ñëwee def lañu ñu loolu yow waroo ci dugal sa loxo bu dul loolu da indi leneen loolu nag moom moo ñu dal parce que ñoom itam dafa mel nañu tiit xamuñu fu ñu jëm xamuñu fu ñu dal loolu moo ñu problème parce que tey jii ñoom yëpp boo gisee ñoo ñu def njaaxum bugguñu leen daaneel comme ni Pape Alé mooy dañuy wax man man kii bu daanoo fu may jëm man. problème bi loolu la léegi nag loo tax xaw na gaa yi dañ leen war a yaatal yoon wi ñu mën a di dem te bañ a taal suñu alors professeur li dal Guinée. dal Mali bii ñuy wax. problème yooyu yëpp loolu la ñoom dañuy dem ba ëppale xam nga ne da ngay ñëg xam ngeen wolof lu yox ñëg ñëg ba mën a toog dellu gannaaw yow ngay puus rek di dem di dem te kooku musiba la loo tax seen mbokk yi ñoom ñi toog si jal bi seen mbokk yi dañ leen yedd ñu xam ne loolu du wéy. jaaduwul. mais est-ce que ñëpp seet nañu ci Jacques Habib si délégué général francophonie ñu tudd ko ci marché gré à gré bu toll ci soixante cinq milliards euh, te mu bokk ci société civile yàgg xeex li du guerre est-ce que tey loolu du dindi crédibilité bu société civile ci ci xeex guerre. xanaa man barkan tontu naa la dama la déggoo ma ni la ku deful ndànk sa nijaay sa maam sa tante ak sa xarit bi ngay doon liggéeyandoo mën naa am du ci set. waaye république comme ni ko Pape Alé wax mu mel noonu man toppatoo ma muy doon diw Masamba ma demba mais man bi ma nekkee euh, médiateur dama doon def rapport yoo xam ni dañ yenn saa yi su ma ay ñu ma xam su ma ay xarit mais dama lay woon ni la ah wax nañu lii lii de yaa ko def bu budul loolu ma jébbal ko man bi ma jëkkee booba booba sax mu aw ma titre médiateur xam nga la problème bi ma jëkk euh, réglé ci université lan la xaalis bu doon bari bu doon génn kenn xamul xaalis bi fu mu dem am ki jiite woo ma ni ma buuba ndax mën nga ma euh, réer bi ma ne ko acca ñu dem ba ma demee ba def suma rapport rapport bi bu soo demee ci archive yi moom xëy na ma nga fa parce que rapport itam doo ko yóbbaale archive bu jàmbur la mais bi ma demee ba xam la fa nekk booba li ñuy wax fonction de service maanaam xaalis bi nga xam day généré ay mais xaalis bi kenn xamul nu mu toll xaalis bu bare booba yëf yi fa doon door bi ma demee ba xam ni bëgguñu régler problème bi dama ni ko euh, ki ma joxoon liggéey ma ni ko kii gaa ñi def si njaaxum yi soit nga woo leen yedd leen bu dul loolu ma jox ko journaliste yi. lan lan demee mu woo leen ñu ñu normaliser li ñu doon def man loolu man maa la ko wax. booba sax booba du ma booba sax amu titre waaye daf ma ni ma coow xaalis bi dafa bare ci kër gi ndax yow mun nga ko régler. ma ñëw gis am na xaalis bi nga xam ne bii ci mbirum faj la yii ci mbirum pële du ma dugg ci détails kii moom xam naa affaire université xam ni ma wax bi ma demee ba xam ni affaire bi dama ko woo ni ko kii daal bu ñu gaañu normalul ma jox ko journaliste yi journaliste yi génne ko. en parlant de bu boobaa rek dañu normal. Mhm. donc gis nga euh, bon affaire yi. en parlant de le public mooy loolu. en parlant de mbokk dégg nañ tey ci suba ci yenn yéenekaay di wax ni enquête Petro-Tim bi daanaka tamit bouclé nañ ko loolu tamit nekk actualité te ñëpp xam nañ ni Petro-Tim tuddoon nañ ci rakku président République ñu def fi appel à mu am ñu doon dem di wuy ji di wuy ji ñu jékki-jékki ba si yàgg dégg plainte contre X fi nekk nii daanaka toppatuñu kenn loolu tamit lan la leen di inspiré professeur après je veux dire euh, je veux dire que j'ai jamais de blanchiment d'Aliou Sall le x là n'est pas un inconnu x x au carré la waroon doon parce que les deux personnes qui sont impliquées xam nañ leen c'est Franck Timis Aliou Sall ñoom lañu fi tudd BBC tudd la tudd ma tuddul keneen il faut qu'on logique parce que nous aussi journalistes il faut que ñu refuser de tomber ci piège yooyu ñu ñuy jox le x là n'existe pas parce que ñaar non non non mais parce que non BBC ban reportage bi kan la ci tudd. ak jeex na. kon que x bi pour lan la x bi c'était une opération de blanchiment bu ñu orchestré ah oui parce que soo gisee sax ni ko procureur annoncé conférence ngay wax lu gën a sérieux ressource naturelle ngay wax ay milliards nga ne waaw bon jàkka jaay yi noonu ko mën nodd nga ñëw nodd ah la wax regardez la conférence de presse pour être plus sérieux mun jàkk jaay yu ne ah, naa ku mën a nodd nga ñëw noddoo ah. Aliou Sall est comme témoin Franck Timis waroon na ñëw comme témoin aussi wax ñeneen ñi liñ ci xam yëpp kan moo mën a gëmloo tarfatalu ay ni benn sénégalais rek ne Aliou Sall franque Timis takku na ci mbiru Petro-Tim les faits sont kenn mënu ko dindi. décret d'approbation ñëpp xam nañ ko rapport inspection générale d'État génn na siiw ñëpp jot ko audition nit ñi nekkoon Petrosen ñëpp ko liir kon boo ñëwee gën wala tax man a man gis nga ba coow li bëre dama ne leen opération de blanchiment la mooy opération mooy bëgg nañ xool yoon wi mën a jaar pour blanchir kii di Aliou Sall. loolu laa gëm. est-ce que tey am mënuñu tiit kon ci suñu justice parce que gis nañu sax ni coow loolu El Hadj yoroon communication président daanaka mbir moom sax ci lañ ko wàccee parce que rek euh, doon na jéem a joxe ay explication yu mu am ci mbir mi. xam nga euh, yow euh, dugal nga sa baaraam ci fi muy xam nga tuur lëndëm bi yëpp ni ko Pabale waxee fuural beeg yooyu yëpp li ko indi mooy réew mi ci li muy wax république maanaam réew ay nawle dañu war a teqale. ndombo yi mënoo nekk fii sa tànk su ma tànk bi ma takk ci fanweeri ndombo fii mais kooku dafay jaxase dafay njaxal xel yi te liggéey bi du sotti ki nga xam ni moom mbirum dogal lay def ki nga xam ni mooy ngirum atte dañ leen waaye ku nekk def sa liggéey te kenn bañ a sonal sa morom bañ xëbal bañ bañ a buntu xatal ak yooyu loolu la ñu woo ci république loolu moom moo amul. loolu moo tax affaire wu Franck Timis bi rek ak affaire mais ñi nga xam ne mooy seen liggéey lañ leen bàyyi ñu def liggéey ba ci biir ñoom def conclusion. waaye bu fekkee euh, gouvernement bi ñu nekk ci biir ñoo ngi xëbalaati nit ñi wala dugg si wala daan ni euh, du mais kenn xamul te moom bi mu ñëwee naka ngay ñëwee yow bëgg nekk président de la république. nga toog tuuti day dem ba ci yàgg sax moom ci moom moo dem ba ci yàgg daal ni Cheikh di moo ko fa jëlee ci fi mu nekkoon ci yenn yi CDC loolu mais am na yu nga xam ni dafa doy waar bon bëggee ñu dellu ci ci lii pabal di wax république ku nga xam ni sa papa sa yaay sa doom bi ñuy nekkee sa wet bu la neexee nga dimbale leen ci li nga am waaye nag waroo profité si jal bi nga toog xëcc sa mbokk yeeg sa sëriñ yeeg sa yooyu mooy tax réew mi dellu gannaaw mais réew mi li moo am li ko yàlla may Sénégal li fi nekk ci ndox am géej nga am zircon am pétrole am mais nit ñi fii fii noonu war a fi am man kii toog naa suba benn xarit bu jógee Éthiopie ñu ñëw muy di xool Sénégal bu jàkk bu nu man li ma jaaxle man muy may seen réew mi mu am ñu sonn ndaxte mënul comprendre lii fi am yëpp te nit ñi amuñ ci mbégte bon li ko waral mooy euh, jaaxum yàpp ak itam nag yéen émission bi tudd leen leen mais xam nga li ñu rey lan la ñi nga xam ne dañu ñëw wóoruñu di ñu loo ni dañuy dimbaleeg et puis wala sax dañuy défendre dañuy seen bopp la ñuy aar ak seen seen amam ñooñu ñoo tax gaa ñi fuur ak gaa ñi di tur la waaye nag comme léegi ñële talaatuñu kenn te mënatuñu seen bopp dara xam nga tey sax déglu boo dégloo ma ñu ngi wax ah oui nañu war a nit ñi war nañu manifester gi yëg ñoom commencé nañu gis nii ñoom seen bopp. Mhm. tanewuñu kenn. mooy américain baat. Mhm. français baat. Euh, turc ba ñooñu wuñu kenn kenn kenn. Euh, juste sur ce point là. Ah ah. benn benn phrase. mais le président avait donné le verdict. Mhm. le verdict bi ngay wax ni. le président l'avait donné. ah correct ñëwul taxaw ci kanamu imam bi julli ba pare mu ne sama rakk rek la moo tax ñu koy ciy tudd. c'est vrai patron de la justice. on s'en souvient wax kon xamoon na ne bi mu taxaw ci bëri imam man ma foog ne day ñaanal sénégalais yi ñaanal leen lépp mu ne leen waaw pétrole bi ngeen di dugg coowul pétrole bi lépp parce que sama rakk la rek moo tax ñu ko ciy tudd ah mais defu ci dara. alors Papa Alé une dernière question laataa ñoo dugg ci leneen euh, li nga expliqué yëpp tey est-ce que mënuñu nekk le président il a trahi un peu les sénégalais moom mi nga xam ne dafa ne woon que patrie bi moom lay jiital toujours avant parti beeg euh, famille et cetera. ah mais xam nga loolu nag moom euh, li may wax ne on est passé d'une gouvernance sobre vertueuse à une gouvernance sombre et vicieuse muy benn xam nga loolu moom moom moom vous n'avez pas remarqué une chose durant toute la durée de sa campagne électorale deful campagne sur immat sur sur sur un bilan immatériel le bilan immatériel c'est quoi c'est l'état de droit c'est la bonne gouvernance la transparence or en voilà les axes majeurs de sa campagne électorale son discours de campagne était sa mhm. mais ba mu ñëwee la la la fiche lañ ko doon jox mu ne vous avez vu le nombre de kilomètres que j'ai à faire depuis loolu la la doon wax mais le bilan immatériel ah c'est la bonne gouvernance mhm. l'état de droit ah mais yooyu ñoom dañoo amoon sax code seen biir parce que j'avais des amis à l'intérieur da leen joxoon mot d'ordre mhm. mais loolu bu leen ci prononcé wu kon ça veut dire que bon entre ce qu'ils nous avaient promis en et ce que nous avons constaté un an après et jusqu'à présent ce que je crains par contre c'est mode de gouvernance bi mu indi nii moo koy poussé mu wuti troisième mandat parce que mode de gouvernance gouvernance bi mu yor nii mode de gouvernance bi xam nga mooy da ngay dem ba ba tu as peur de lâcher le pouvoir moo lay poussé nga ne bon attends je vais jouer je vais je, je vais jouer la carte. c'est quoi parce que le débat est agité. ñu ñu ñu bari oh, le débat xam nga Fatou Abdou dañuy wax. le débat dañu ko agité waat laa bëgg a wax. le débat n'est pas agité mais tous les actes un homme libre libre qui est conscient qu'il exécute son dernier mandat du nekk ci calcul politicien d'épicier di wax ne man damay ñëw dugal fii nit fii damay dugal fii kii foog ma téye ko foog ma nommer Moussa Sy fii parce que y a peut-être Amadou Ba qui a des ambitions cachées je sais pas peut-être déjà mais Moussa si ma dooleel ko moom xaalis tuuti parce que su ma ko nommé a Port am na 7 millions de salaire donc mën na téye euh, par Parcelles Assainies xam nga ça c'est des calculs def calcul yooyu nga dem ba nga xam ne tu es le seul à le calendrier électoral tey jii yow ma wax la ñuy def élection locale man mënu ko wax kenn mënu ko wax seul le président. mais mais, mais élection locale bi la responsabilité de l'opposition dafa engagé parce que ñoom dafa mel ni élection yi am euh, au plus tard mois de mars 2021 euh, gënalu leen wala yow beneen lecture nga ci am. non mais jusqu'à présent ce que j'ai entendu de la part de l'opposition ñoom bëgg nañ mais dafa yiwul tegginuwul jaaduwul rafetul ci démocratie ci république ñuy toog ñun ñu fal nit pour cinq ans dàqal la ko benn at. mais ñi ko fal ñi leen fal ci instant boobu est-ce que ñoom kontaan nañ ci liggéey bu leen maire boobu defal muy benn nga dàqal ko ko benn at doyul nga dàqal ko ko ñaari at doyul nga dàqal ko ko ñetti at est-ce que loolu ci est-ce que ci li ñuy wax rek chaque jour ñun dañuy fëgg suñu dënn les Sénégalais on est trop prétentieux parce que bu ñu tukkee gisee leen dëkkee la wax dañuy wax fii ñun bulletin unique ñëw dañu ko voté Côte d'Ivoire qui a fait dix ans de crise bulletin unique la ñu Madagascar a fait combien d'alternances ñun Sénégal fu ñu fëgg fëgg suñu dënn oui on est une démocratie majeure sa démocratie majeure boo xam ne Abdou Diouf ba Macky sàll fu ñuy werante fichier électoral la. waaw nañu waxante dëgg il faut ko on n'a pas avancé. mais tamit Pape nan lañ mën a comprendre ñuy wax waxu bulletin unique alors que ñoom ñi nekk tey ci pouvoir bi yàgg nañoo xeex ngir bëgg ñu def bulletin unique. le meilleur homme politique c'est celui qui est dans l'opposition chaque jour ma wax leen man dama doon toog kenn nekk opposition. ma ko doon jël plateau moom mooy wax bulletin tu bulletin mu nekk pouvoir damay jékki sax bu ne ma kii rek ma ne ah grand yow mosoon nga maa wax ne ma bulletin unique moo gën tey jiitu ma di le contraire mais mode de scrutin par exemple législative dem leen ngeen déglu loolu la président Macky Sall waxoon chaque jour ma teg ko mooy ba yëpp ba ñii doon wax ne ils veulent un régime parlementaire mun ne moom gëmul régime parlementaire xam nga la gëm pour que l'Assemblée nationale puisse être le centre d'impulsion de la politique il faut changer le mode de scrutin def na fi ñaari législative dafa changer changer mode de scrutin bi alors. alors euh, waxtu bi xoj nañu mais peut-être une dernière question pour le professeur s'agissant de euh, problème yi ñu euh, li ñuy nemmeeku fan yi ci biir APR saagante yeeg ñi ngi ciy dàkk ak et cetera tey ban gis-gis nga ci am. Oh, xam nga man de yooyu may fi jaaxlu ma ndaxte xam nga. doomu aadama li mu wane mooy dafa jóge ci jamono joo xam ni nit ñi dañu meloon na ay bàyyima ñu dem a dem dem dem ñu xaw a tane tuuti dem ba ci ak am lu ñuy wax ay sanc xam nga sanc ak dëkk bor dëkk boo nee dëkk rek nit ñi commencé nañuy seet lan nañu mën a juboo pour mën a dund ñuy dem am réew kër dem ba ci yàgg lii nit ñi nag yàgg nag di soppi ay mbir waaye boobu amuñu li ñuy wax parti politique yi parti politique yi dañu bëri nag xëbër xëbër yi mel na ba ñu bi mu amee ay nooy junni at te kat léegi yëf yi motul ñetti téeméeri at bi ñu dëkkee parti dégg parti politique ci àdduna booba Karl Marx bi nga xam ne moom moo ni liggéeykat yi dañu war seen parti mais ñi nga xam ne ñooy ñooy meññal ak ñi nga xam ne ñoo leen di noot ku ci nekk da nga am sa parti fa la yëf yi doore parti yi bëri parti bari waaye parti yi parti yi daanaka est-ce que moom mooy tax nit ñi ñu soppi seen adduna déet APR président bi mu ñëwee mais xam na ni bis bu wootee congrès mu tas xam na ko parce que li ko moom xam na ko bon lii fi dal yow yéen war leen bett xuloo beeg mosoo dajee congrès kenn xamul lu lu lu nuy ki lii leen dal dana dal mbootaay yu bare sabar gu tas moo feeñ tëggkat yi galañ yi réer na kenn xamul fi yëf yi jëm. li ma ciy wax mooy xam nga république ak démocratie. Uh-huh. fulla ak fayda dafa ci am maanaam. Uh-huh. te gis nga jàng. Uh-huh. waxuma jàng ci école rek de jàng ci yàgg fekk ba nit ñi normal xam comme li Mbabal di wax ragal bañ a am nga xam ni kat lii kat mooy njëriñu lii te sax lii sàmm sa waajur mooy nga def lu normal. c'est vrai fi mu fi may daanelee. ci ah. benn mot. Mhm. mooy man damay jàngale histoire démocratie ak république. xam nga bi ñuy door démocratie bi ñu ko jokkoo inventé dafa am lu ñuy wax grave paranomon maanaam yow. Mhm. boo jógee tey nga ni ah man de damaa toog ba ci yàgg waaye daal buur yi amoon na waaye damaa bëggee suma doom bu ñëwee nekk buur dañ la war a tëj. dañ leen daawoon tëj booba parce que boo waxee li nga xam ne yow da ngay delloo nit ñi gannaaw bon jamono jii am na luy gars yi di su fekkoon réew mi normal la dañ leen di fekk seen kër jël leen dugal leen sa kaso ba. pour ñu may euh, ñu jàmm. loolu moom moo xewoon ci histoire. Uh-huh. waaw ku nga xam ne li ngay wax ak li ngay def dafa war a yoon bi dañ la war a jël tëj la nga may nit ñi jàmm ñu doxalaat. <laughs> il faut pas que nous tombons dans ce piège des injures yooyu. Uh-huh. c'est privé. Uh-huh. c'est privé. on doit se concentrer wala yi nekk derrière xam nga lan la c'est privé. Ah. yaa xam comme ni mu def Moustapha Cissé Lo saaga na ko am na droit porter ko far mhm. Farba Ngom mi ngi saaganteeg Moustapha Cissé Lo seen affaire la man intéressé wu xam lu ma intéressé Moustapha Cissé dafa nekk député élu par le peuple sénégalais au suffrage universel. moo war a nekk le représentant du peuple. ñu dem ba di leen dàkkantele honorable moi je le mets toujours entre guillemets parce que dama gisul lu ñu liggéey lu ma mën a tax ma jox leen titre boobu mu ñëw toog devant le ministre de l'agriculture c'est important ne ko yow ministre de l'agriculture yow laay waxat nii lañ den naxee Abdou Diouf nii lañ den ab lay wàdd nii la ñuy naxee Macky Sall yéen a ngi jël ci biir agriculture quota de semence di ko jox xale yoo xam ne dañ koy jëmbat café de Rome te dañ ko subventionné jëmbat café de Rome mooy dañ koy ñëw di ko jaay opérateur agricole yi te li ngeen di wax chaque jour na moom ngeen réaliser ci chiffre yi c'est faux amul mu ne loolu amul te loolu dañoo ko war a dakkal biir ministère de l' agriculture ngeen arrêté semence yi ngeen koy jox ñoo xam ne bayuñu amuñu tool xam nañu bay baykat yi di sonn ngeen di ñëw di génne ay chiffres di ko inventé loolu jaaduwul coow li bari ñu commencé koo saaga du dëgg foofu la tàmbalee wax ji ba ñuy voté budget bi décembre deux euh, mille dix neuf coow li bari ñu commencé koo saaga mu ne leen su nekkee ne li may wax amul monsieur le ministre de l' agriculture génne liste bi ñu publier ko ci journal la Soleil ñu xool sénégalais yi atte ñu foofu la coow li tàmbalee man Pape li ma ci intéressé en tant que journaliste bu saagaa Farba Ngom Farba Ngom na ko porter plainte bu saagaa yaa xam na ko yaa xam porter plainte loolu seen problème c'est privé mais damay wax ne est-ce que li mu révélé moom noonu la réew mi di doxee parce que scandale la. c'est vrai parce que 60 pour cent 70 pour cent des Sénégalais se nourrissent de l'agriculture. voilà le fond du problème foofu lañ ko situé beneen mbir bi tamit ñu war ko ci jàngat moo di. am na fu mu taxawee ne fii kenn du fi wut troisième mandat moom Moustapha Cissé Lo kenn du taal dëkk bi parce que mënuñoo xeex ne Abdoulaye Wade du fi am troisième mandat tey jii ñenn ñi ñu jox leen gato bi ñu jóg ñoo xam ne mi ngi saf su ko ñu bëgg pousse président mu troisième mandat loolu du fi amee dama koy xeex purge nee naa leen Macky Sall bañul ko wax troisième mandat xam nga lan la bañ ku ne ko mënoo def troisième mandat c'est voilà il commence à déranger peut-être mais euh, en tout cas merci d'être venu professeur ñu ngi lay remercier bu baax a baax. papa la yow itam merci beaucoup jërëjëf yéen la ñuy gërëm kañ. Ah, ndax wi neex na te yéen ñuy euh, may ñu gën a xóotal yenn mbir yi. Eh, di yéen ñaanal yéen ñi nga xam ne yéen a yore yéen kaay yi ngeen àggale seen liggéey. ngeen bañ a ragal bañ a xaddi ndaxte yëf yi yomb la. incha allah ah. Pape yow euh, nga jox dig daje téléspectateurs yi demain incha allah. incha allah donc face à Pape voilà donc ce sera demain incha heure bi donc di leen di jaajëfal bu baax a baax yéen yi ñu doon euh, seetaan depuis tout à l'heure di remercier Ndeye di Met Ndaw ak Fatou Abdou Ndiaye jox leen rendez-vous beneen yoon incha merci